seetaan TFM waaw waaw ngeen def seetu Sénégal TFM minuit 44 ba léegi ngeen di àndandoo ak ñun en direct ci télévision Futur Média tey exceptionnellement quartier général un dimanche soir ak maître El Hadj Diouf boobu ba tey question yaa ngi jóge fu ne ak team jàkkaarloo ñoom ñoo jàkkaarloo ak ki nga xam ne ni mooy maître El Hadj Diouf dans quelques minutes tamit euh, ñu jël euh, xalaatu internautes yi parce que bëri ngeen euh, ci di yónnee ay questions yoo xamante ni maître El Hadj Diouf ngeen ko jagleel ñun ñëpp a ngi fii pour gunge leen tey jii ci télévision Futur Média laata laata ñu tàmbaliwaat waxtaan beeg maître dañ leen di bàyyiwaat ak euh, Souleymane Faye ndax lu mënul ñàkk euh, faaw mu am euh, le philosophe a di que Souleymane Faye c'est un philosophe donc defe naa loolu Sénégal mën na koo nangu xel itam mën na koo nangu ndax Souleymane Faye c'est un parolier c'est un grand artiste yàgg gunge sénégalais yi moo tax tout le temps dañuy ñaan mu yàgg fi à chaque fois bu wooyee album yi dafay mel ni comme si livre page yi benn bu ci nekk da nga koy lire mu am lu bëri loo xamante ni mën nga ko cee jëlee bëgguñu ngeen gaañu waxtaan nag politiciens yi sénégalais yi ak homme politique yi ban woy lañuy may léegi nii on découvre nit moo ko jikk nit bu xamoon fan lay mujj lootul nelaw at mi nag bari ñoo xam dañoo bokk at bi ñu koy may suñu mag jiwoo kaam ko may suñu mag du dukkure di ko may Moussa Diop sambalaay di ko may Ibou Diouf Andari Lo yal na si suuf sedd seen kaw Shalalayen Shalalay Shalala Shalabulaluwen Papa love you. Shama let. Papa da boom boom boom bing fading in. te ma wax leen lu tax ma naan toog ba mu yàgg sama xel bi sore te ma wax leen lu tax dama daan bég ba mu yàgg sama xol bi naqare dama fi amoon benn xarit bu baax buñ naan wooyee soogi ba mu demee ba tey ma sañoon saa yi ma yeewoo tey jullee amoon naa fi doom bu baax buñ naan wooyee soogi ba mu demee ba tey ma sañoon saa yi ma yeewoo jullee yaa dafa ragal yàlla yàlla léeg-léeg dama naan toog ba mu yàgg sama xel bi sori mel ni soogi dafa taxaw jàkkaarloo wang maan léeg-léeg may waxtaan ba mu yàgg sama xel bi tukki mel ni soogi dafa taxaw di waxtaan ang maan man ma dellu fàttali ko ñun ba ñuy xale xamuñu woon ne ba sa ngi ñëw ñun dañuy dee ba nga demee ba tey ma sañoon saa yi ma yeewootee jullee ba ñuy gone xamuñu woon sax ne ngi ñëw nit dafay dee yàlla na yéex ba nga nelawee ba tey ma sañoon balaa maa tudd soogi kenn la fi woon dootul ñaar kenn la fi woon dootul ñaar bésu ne ñoo ngi dégg ñu taage doomi aadama yi ci rajo yi du ñu saf bu ñu tàggee sa mbokk sa àdduna béppay tukkee bés bu ne ñoo ngi dégg ñuy tàggee doomi aadama yi ci rajo yi ñu changé poste bu ñu tàggee koo xam sa àdduna béppay tukkee kon yàlla yaa di buur yàlla yaa di yow yaa yàlla yàlla yaa ñeme teg doomi aadama bi ko métti te du sañ a mer ndax yow yaa yàlla yàlla yaa ñeme teg doomi aadama bi ko naqari te du sañ ndax yow yaa yàlla yaa di buur yaa di jàmbaar yàlla yaa di buur yaa di jàmbaar bravo en plus am na ay artistes yoo xamante ni dañu fi jóge bu yàggul euh, professeur euh, il en a profité rendre leen hommage ñun itam euh, ñetti fan a ngi nii ñu leen di waxtaane de temps en temps ci suñu émission ils ont beaucoup fait mm-hmm. pour drapeau Afrique moo tax ñoom deew muy mm-hmm. Dari Lo muy Jo Wakam mm-hmm. ils ont accédé à l'immortalité parce que li ñu fi bàyyi ci ay doom maanaam ci seen wàllu production artistique tax na éternellement ku mel ni yow ak keneen ak keneen de l'humanité ces merci Souleymane Faye euh, da ngay desandi ak ñun parce que jeexaluñu ñu ngi jëm xëdd ak téléspectateurs yi Ndiaye euh, bu doon Mamadou Ibra Kane waxtaan bi yëpp bu ko yóbbu woon ci les affaires de la cité nan la koy commenter voilà si c'était Mamadou avant tout damay njëkk a wax ci euh, maître El Hadj Diouf premièrement li ma ko gën a nawee mooy disponibilité parce que saa bu la rombee ci tali bi boo ne ko maître dina taxaw nuyu la avant muy dem parce que kenn ku nekk da ngay seete li nga xamante ni moom nga gis. Mamadou. ñaareel ba gi koy Serigne Mbacke soxna loolu la yor yorul poos ku mel ni euh, sunu papa sax laay wax Souleymane Faye su fekkee da ngay déglu musique te bëgg a wéy da ngay ñee genre gu mel nii ndax danga naan est-ce que su ma ñaanoon yàlla. voilà ndax dina la may euh, comme xam-xam bi mu bi ko may voilà. voilà mu ngi noonu. merci c'était les affaires de toujours nag euh, vous savez euh, dinaa ko invité dans l'affaire de la cité. mm bientôt léegi rek incha allah. voilà après nga jox ko ay questions directes. bien sûr comme Alassane ay questions yu mel ni jaar nag yu mel ni jiit yooyu nga koy dóor. direct voilà super. <laughs> ñu àggaliwaat waxtaan bi ak euh, maître El Hadj gërëmati la euh, ci disponibilité bi euh, yeneen ponk yi nag yi ñu bëgg a jàll dina bokk ci wàllu politique dinañ dem sax Qatar. parce que actualité la waxtaanee itam Khalifa Sall n'est-ce pas Adia. waaw balaa ñuy yegg foofu yëpp man dama bëggoon rek mu ñëwaat si facture entretien auto assemblée nationale yi nga génnee fan yi man question bi ma la si laaj rek rek ndax nekk wax na ci mhm. ndax nekk na loo xamante ni musoo kaa xam dafa nekk loo xamante ni daf la bett xam nga wax da yenu maanaa man may ne député boo xam ni il faut que nit di seet lu ñuy wax bu def fukki at assemblée ñaari mandat le premier juillet 2012 laa ñëwaat assemblée fekk maa fa ñëw 2007 donc dans quelques jour dinaa def dix ans assemblée nationale ma gis sama vidange temps wu ñoom Doudou Wade ak Macky Sall ak Mamadou Seck ay 33000 43000 50000 day deuxième questeur moom xëy na moom xamul càcc gi moom nee na moom lay reprendre pour dire que ñoom seen biir seen wax dafa waroo addi ah, doo bàyyi ma fan deuxième questeur bi ma waxee factures yi ay day dem ba ay 180000 mu ne du dëgg mu ne bu 21000 moo am mu ne bu dee simple bu changé futur yeeg yooyu dina dem ba cinquante trois mille trois cent trente et un loolu wax addee mu ne foo mooy sommet El Hadj Diouf bu amee facture boo ëpp loolu da ko génne loolu la wax xam nga man nag damay jël témoin journaliste bu dee journaliste yi nag ñenn ñi amuñu xam-xam du ñu xamuñu dara amuñu culture ko wax du la déglu kon bu am wax ñoom dama bëgg li nga xam ne mooy atmosphère ambiante lii actualité ñoom ñu maîtriser ko ndax deuxième question moo au presse ni leen El Hadj Diouf daa koy défier na fi génn facture bopp 53 331 ndax bii daan bu demee ba cher nee na la nee na la plus chère bi gën mille kawe 53 331. bu bu dee damay fen nee na ma taxul da ngay fen mu ne ma bi gën a ndaw mooy 21000 mooy mu dee bilan simple la mais bu changé ay filtres yooyu yëpp maximum 53000 wax na dëgg bu dee yoon nañu wa mu ne nag naa génn facture yi ma génn facture yi teg. ba ma ko génnee kii laa njëkk a génne de parce que loolu dafa amoon benn benn enquête bu ci bii journal def nouvelle hebdo hebdomadaire la groupe des médias du 11 au 17 octobre 2016 moom moo ni nga di fi def daaw de xam nga du ma du ma génn affaire bi mu bind assemblée nationale le scandale du parc auto ci biir mu ne nii. le business juteux d'experts auto sur les véhicules. Nous sommes le 11 octobre 2016 mën na léegi fukki weer presque kooku lu ma El Hadj Cheikh Anta Seck bu tribune te bind Nouvelle Hebdo moo bind lii mu bind fii wane ni le marché de la maintenance des véhicules de l'Assemblée nationale est pour le moins juteux mais à qui profit t en réalité Depuis 2012, en effet, une société anonyme dénommée Expert Auto a pris le relais de la société Total Sénégal. Total Sénégal moo doon vidé oto yi mais 2012 bu mag Sall gagné am ñu bees ñëw assemblée dañoo dégagé Total créé Expert Auto bu masul am créé société bi mu capté affaire yi ñu ne fa vidangé oto yi di jógee 53 mille ak 21 mille jëm 180 mille. kan moo créé Expert Auto. déglu ma ci la jëm si mu ne. a pris le relais de la société Total et pratique des tarifications qui, au terme de nos investigations, semblent largement au-dessus des prix de la plupart des spécialistes de la place mu dem ci Elton dem Shell mu ngi nii mhm. dem et Total laajte mu ne aujourd'hui le propriétaire mystérieux yaa ngi laajte de l'entreprise Expert Auto fondée après la victoire de Macky Sall en 2012 est spécialisé dans la maintenance de véhicules, entre autres services, doit être bien Et pour cause, le caractère juteux du marché relatif à la maintenance des véhicules appartenant à l'Assemblée nationale est dans son escarcelle depuis quelques années une sorte d'exclusivité qui lui garantit des revenus confortables mooy détournement yi ma waxoon mu ne le plus le plus spectaculaire dans cette affaire c'est que la compétence de la société Expert Auto n'est pas avérée au point de devoir exécuter seul ce marché ñu ne Expert Auto xamuñ lañ ko ci affaire auto xamuñ ko ci affaire vidage moom daal ba Macky jëlee pouvoir bi la ne cëpp daal di gudd capté nag affaire lépp luy assemblée on continue la société Expert Auto comme c'est indiqué sur le registre de commerce SNDKR Sénégal Dakar 2012 B 17601 n'a été créée qu'en joxe na bi immatriculation bi registre de commerce bi journaliste bi vrai journaliste ponkal la la ñu ne journaliste mel journaliste d' investigation société expert auto comme c' est sur le registre de commerce SNDKR 2012 B1 601 n'a été créé qu'en 2012 qui coïncide avec l'arrivée de Macky à la présidence de la République et au démarrage d'une nouvelle législature la douzième auparavant avant ñuy def li les travaux des maintenance étaient attribués à la société Total notamment pour certaines pannes et pour la vidange soo ñëw nag ci montant bi boobu man wax ma ko de mu ngi wax moom 2016 mais ñu bëri yëguñu lii ndax du ñu liir ñu ñu bëri ñu liir ak seen télé ma continuer pour la vidange un député membre de la législature précédente est toujours présent à l'hémicycle renseigne que la facture ne dépassait pas 38 000 député bu fa nekkoon ci législative bay passé nee na gis na enquête da ñu ne ko daal weesu 38 000 ci enquête am mu ne avec super auto le montant à payer pour une vidange atteint des sommes des sommets des sommes faramineuses en passant du simple au quadruple 128 000 et poussière dans ce qui ressemble fort à une surfacturation le mal est dans la tarification avec des dépassant de loin ceux qui sont en vigueur sur le marché mu lim total lim li lim li nga gi lim na Elton lim total total laaj leen nu ngeen vidé Elton lu ngeen vidé député yi total lu ngeen vidé député yi gis affaire bi di c'est mu ngi nii man ma njëkkuma koo wax am journaliste bu seet gëstu comme Latif Coulibaly ma def génn ay mbir ci affaire Karim Wade yéen a ngi wu. compte et mécompte de l'OCI de la NOCI donc journalistes yi dañu gëstu man ci sama seetlu benn jour ma seetlu benn affaire bu ma jaaxal xam nga kii mu ngi bi octobre xam nga man kañ laa ko kañ laa commencé soupçonné sama gars yi xam nga député yu bëri boo dee laajee facture euh, vidange xamuñu ko te dañuy vider chaque jour laajee ma lu tax lu tax xam nga loolu intéressé vidange rek mën a intéressé kilométrage bi daal jot na nañ dem vidé ji chauffeur mhm. bi day dem jël bee de bon am na ko wax fii nee na damay signé waaw mais xanaa man nag avocat laa léegi li may signé naa ko xool ñoom ñu ñoom ñu avocat xëy na war duñu duñu signé di ko xool pour ñoom na saa si am nañ droit ci vidange rek dañuy signé lu assemblée lu muy rapport dañ lay jox bon bi nga signé mu dem ñu changé la lenn walla ñu vidé la man benn may xool di xool man fee bu jëmaan ma gis ay 38000 léegi bu ñëwee romb 120000 jëm kaw am na lu xew ma ne soo dama photocopier ma mu photocopier ma xam nga bii kañ la woon bii le man xam nga bii octobre la euh, jour article bi man 26 mai déjà am na bu mu dencoon. ban at. 2016 2016. avant octobre mai juin juillet août septembre octobre 5 mois après. Mm-hmm. article bi génn. waaw daa damay conforté 100 pour cent la ma xalaatoon ni sàcc am na naa naa denc sama preuve mm-hmm. ma denc sama preuve beneen preuve ñëwaat pneu yi ma changé pneu chauffeur bi ñëw ni ma signal ma ne ko photocopie la gaaw li photocopie baa ngi nii mm-hmm. muy 800000 bii ban date la te ay pneu rek la woon waaw bii bii la la pneu nag ça de oto bi. am na am na hmm. kii am na at. ngay oto. xolo am na at ak gànnaar rek 9 mars 2016 ma changé pneu. waay 800000 yaa gis. xanaa ñeenti pneu yëpp lañu changé. ñeenti pneu 800000. Ah. mais man lii ma su ma ko def euh, daaw léegi ay 200000 ba ma nekkee ci législature bu njëkk ba. Mhm. mais yooyu comme oto oba yi la yooyu sëriñ mu mais ku muy yóbbu doole. ma ne xëy na quand même c'est mais na enquête rek ma ne sama chauffeur mu nga ne toog moom moo dem kii la sox simis ba léegi simis kari léegi moo dem CFAO ma ne ko laajal ma euh, bu ma bëgg changé sama carte pneu ñaata ñaata la pour assemblée mu ne facture muy carte pneu yi 441 864 plus TVA ça fait 521 400 les carte pneu yi ma jaayee 800 000 800 630 expert auto ñoom ñooy xamuñ dara ci pneu xamuñ dara ci oto xamuñ dara ci village ñoom ñooy surfacturé di sàcc may ma ma pare bu ma dafa naan damay damay damay joxe ay preuve bu ma dog waxuma dara jël fetal fetal jiku xoolal 800000 ba 500000 écran bi mu kii mën na ko jël caméra bi 800000 ngi ni ak ak ak 500000 300000 francs sàcc ko ci pneu ba pare li gën a garaaw su ma si war a ngi ni toog du ma bàyyi fet ma ne ko ana pneu yi bii dañuy changé mu ne ñoom kat nee na ñoo ko ñoo ko moom barke alxuraan ak koor gi kàpp ne yéen di nga def wax ca kaw amoo ngeen sàcc nangu samay bëda ah. fa surfacturé ma huit cent mille au lieu de cinq cent mille carpe ne yi nga xam ne mën nañu ko denc pour am bu ñu amee problème ñu jël ko jaagi def seen poos ñu ñooy ba la ñu fi jaam dëgg la ñuy def xoolal de sincère sàcc trois cent mille jël carpe yi war ko recycler jaayaat ko ay cent mille cent mille wala dangam boobu jeexul bi gën a garaaw soo sëfër gi nii boobu moom laa ne ñii escroc la ñii prison ñu war a dem te daañu naa procureur mu dem enquête am quand même xoolal bii moo garaaw nag bi c'est le some c'est le sommet du vol et de la magouille xam nga sommet bi mooy ban hmm. mu ngi nii dafa def vidange de avant foofu ma ñëw ci vidange parce que dégg naa benn waaye bu ci wax moom day fay vidange cinq dañ lay limal fii ay filtre ay gasoil yëpp boobu ba si éventé ba yegsi ay cent vingt huit mille moom nee na ay facture cinq cent mille vidange cinq cent mille lay def waaye comme moom kenn la mu bokk la keneen kan la sax boobu kan la non non kooku du ma nawleem lu ma wax moom non ñun xamuñu ko. kooku am exilé la ku nekkoon ci réew mu am maanaa dëkk bu baax bu tedd ñuy dàq ko fa kooku du wax ak moom saaga rek lay def ba saaga sëriñ si sëriñ sëriñ Tuubaa yi bañ génne ko kooku bu ma saagaa damay kontaan ndax saaga na sëriñ kon du wàññi dara daf buñ peinture la rek bàyyi ko foofu mu muy taxawaalu ak guddaayam. alors léegi du ma wax ci moom parce que vraiment moom dañoo pour divertir nit ñi moom damay wax askan bi askan bi ba tax a jóg. gis nga booy wan askan bi du ma ko tontu ci wax waxi waxi kajo kajo yi ak saaga yeeg yàq der yi wax ji boo dëkkul fa mu jëm fu mu jógee la dëkk donc du ci wax du ma nawleem man Macky Sall mooy sama nawle chef de parti waaw ëllëg ma remplacé ko bu deexee yàlla bu yàlla bëggee waaye du ma nawle ñooñu nga xam ne ay suq rek lañ alors en passant rek la juste rek ah waaw léegi euh, bi gën a garaaw mooy plaqué di Pape Cheikh mais c'est grave Pape Cheikh. escroquerie du siècle. ak ak ak ak koor gi. xew nag. sama chauffeur bii toog dem vidé ba pare escroquer yi ni ko seen plaque de yi dafa yàqu dafa jeex boo demee nga ne maître na demandé bon ñu changé ko xam nga bi ban date la le 25 mars 2016 xam nga pënë yi pënë yi le 9 mars la woon 2016 ah. le 25 mars ma def vidange léegi ñu dem proposer sama chauffeur pour ñu changer plaquettes yi dañ koy defal facture proforma 358 873 jeu plaquette de frein avant jeu segment frein arrière main d'œuvre mécanique petite fourniture jeex na mu ne 358 873 yi egg seegu ma ci escroquerie bi de. boo dexee ba tey changé woon plaquette da nga ma gëm mars 2016 un an et demi nekk de benn plaquette usé wul nekk de bu demoon indi indi ko fa ba bañ fay 358 mille bu ngoonee mu jëlee oto bi fekk changé wu ci dara déggal ma fi may waxee. Hmm. gëm lu ni su plaquette dafa usé dañ ko war a remplacé bu ma d' accord du signé rek assemblée pète 358 mille. Hmm. bu foofa gaa yootee ba ngoon mu jëli ko foo di changé nañ plaquette yi ñu ne ko saa yee pare demal demal fekk dara jël ko woon loolu mooy escroquerie bu baax yaa ngi may suivre ñuy def bu baax. bàyyi est-ce que boobu la changé plaquette bi ba léegi changé plaquette te ñooñu ko proposé nii dafa dafa dafa ma def enquête ci yeneen mécanicien ñu xool dara gënu seen frein mais nag ñi ñooy escroc ñi ñooy sàcc cest à bu ñu woon gaaree fa pour ñu changé ñu signé ba pare assemblée fay 358000 xam nga duñ xam ne changé ko frein ou pas plaquette yi bu ngoonee ñu ne ko jël si ko ngoon 17 heures bu ñëwee daal dem ñu ne ko changé nañ ko. voilà nit ñi doon détourner xaalis assemblée léegi nag dama dégg fii ay nit yu ma jaaxal Sénégal jaaxal nañ ma ñu bëri jaaxal nañ ma Sénégal maa ngi ñaan ngeen yeewu dégg naa ay ñoo xam ni ñoom seytaane lañu naan waaw moom da koy yéex a wax keroog bay def sama conférence de presse Radisson laa génne affaire yooyu ni damaa bëgg. <clears throat> lii fi am bu fi amati parce que man kenn mooy wax assemblée duñu ma faale def naa ñaari proposition de loi fii ñëpp dañuy toog kenn du ma tudd man bàyyi leen bàyyi leen soxor Sénégal bu ñu duñu avancé duñu dem benn journaliste at yi fekk na ba may def sama proposition de loi yi kenn du ko wax ñu ne benn journaliste benn benn député du def proposition de loi te bu ma def ñu def ci tiroir yi tëj duñu alaaj bi de moom député la bu ñu waxee xëy na ñu ngi may ay voix lu ne propagande la kenn du ko ñi wax sax iñaan ak mu am sa koo xam ni Alaaji Diouf da moroomam ci assemblée nga bëgg mu yem ak moom ci ñàkk xam-xam ak ñàkk mën a bind proposition de loi ñu ne ñëpp député yëpp kenn de proposition de loi loolu xam nga ne loolu du dëgg loolu mooy jalu ngay or nga waxoo dëgg ma def proposition de loi pour faire revenir la peine de mort Moussa Wade teg ko ci proposition de loi pour supprimer la parité man ndax vraiment parité fumisterie la dangeen jéem a nax jigéen ñi te ñoom la ñuy lor ndax bu jigéen jigéen baax na waaye góor baax na góor baax na waaye jigéen baax na Pape Cheikh lu góor mën jigéen mën na ko kon dafa mel ni jigéen ay handicapé la ñuy war a favoriser alors que c'est pas xam nga lu ma gëm man gis naa jigéen ñoo xam ne ñoom ñoo am mbooloo ñoo mën mobiliser ñooy hmm. sol kaar yi mais bu ñu leen bàyyee ñoom député yu bëri seen mbooloo bi gis naa ay góor yoo xam ni da ngeen topp ci liste yi par exemple Macky Sall mën topp ci liste ay kenn wala Diouf xam ne gëm nañ ko mais amuñ mbooloo bu ñu nee benn góor benn jigéen benn góor benn jigéen jigéen ñi am mbooloo lor nañ leen ndax te góor boo xam ni simple la duguru Macky Sall wala duguru El Hadj Diouf fekk jigéen ñi mobiliser ci parti yi am doole bu ñëwee benn benn góor boo xam ne day ñëw costume cravate rek ne ma intellectuel daal di jàll loolu aussi erreur la jigéen ñi. ku ci war a mën a jàll da ngay jàll ku ci mérite ñu investir dañu la investir. <laughs> nga ñafe ko. dama defee sama proposition de loi ko bàyyi mu wax. kenn nanguwu ko ba léegi tontu wuñ ma. Hmm. man nañ ma nangu loolu man def naa ay proposition de loi mais ci facture yi nga doon wax. Hmm. pour conclure. point bi facture yi assemblée. Hmm. yéen a ngi leen prene sàcc gi. plaqué di escroquerie bi. bilan bi surfacturation bi. ti maa ngi lancé un appel à Moustapha Diakhaté dañ ko jël ci benn émission avant may génn facture yi mu wax ci télé boobu nii moom de bu bëggee vidé day dem CFAO moom patron la ñun amuñu boobu pouvoir day dem CFAO ñu vidéel ko après ñu dem ñu remboursé ko mais du fay loolu. xëy na moom dañ koy nëbb aussi càcc gi xëy na bu ko yëgoon Macky Sall sax na yëgu càcc gi ak xamul ko moom expert auto am na ñu nekk assemblée nee ñoo ko moom xaw ma a kan la ci. Hmm. waaye war nañ ko war nañ ko xóotal am na ñu jiiñ ñoo ko moom assemblée. nañ ko ci enquête non waaw. Hmm. mais may ma buuba yaakaar nga trop damay leeral lu bari tey fii leeral ma fi toog. ci li nga doon wax lañu bëggoon yokk tuuti rek. oui demal buuba parce que c'est bien aussi que ñun ñu ah, am opportunité wax. Hmm, en fait euh, parce que xam nga des fois euh, gis naa ci biir wax. Euh, nga junj yenn xam nga boo am na ñoo xam ne seen journal ak seen télé rek la ñuy seetaan on se sent un peu mm-hmm. alors que euh, wax fa dëgg yàlla li ñu tax a toog fii. Mm-hmm. mooy wax li ñu xalaat waaw non damay wax rek en général. waaw li ma bëgg a mais li ma bëgg waaw waaw mais li a nit mënul lër euh, lire lépp mais fi ma bëggoon wax. waaw yow lii la ko ko. da ngaa mel ko jox mi ko génne. non non waaw mais attends rek moom laay wax ni cest Euh, wala phénomène phénomène télé moo la jàpp. non peut-être xam naa boo ma nee mënoo lire sax programme yaa ngi ci programme soo ma nee mënoo lire sax xam naa ne boo ma nee mënoo lire sax xam naa ne. non mën nga lire nga léegi li ma en fait lu ma bëgg a wax mooy si si li nga wax nii xam nga des fois dafa dafa baax euh, nit ñi buñ la dégloo ñu def la part des choses. parce que wax fa dëgg yàlla euh, nit dëgg dëgg rek lay doon. dëgg la te li nga wax fii dafa leer. te dëgg du romb nopp. voilà dafa leer mais xam nga lan moom dama koy faral di wax. lan mooy problème bi mooy lii peut-être que nëbb na leneen lu gën a rëy. parce que parce que nekkuñu si réew boo xam ne. Euh, nit war na mën a euh, moom dara. maa ngi ci milliards yi sàcc après. non non non fait en tout cas ci ci lii nii nit war na mën a bu dee bu dee dafa am ay ay ay pratiques yoo xam ne parce que lii ay preuve yu leer la. Ah, war nañu mën a quand dem lux mbóot xam parce que xam nga ñan ñoo nekk ci ginnaaw parce que li tax ñu koy wax mooy xam nga dakaar damay wax tout le temps Dakar est un petit village. fii ku ne xam na tali bi jóge corniche dem fële euh, ñiy jaay oto yeeg ñiy videeg ñiy def lii ñiy def lii mën a xam. mais li ma jaaxal mooy dañuy dañuy découvrir benn affaire bu am importance boo xam ne li mu nëbb peut-être jéggi na dayo mm-hmm. ñu wax ci benn jour ñaari jour. kii génn def benn sortie benn politicien attaqué ñu jël affaire de ko ci ci suufu tiroir fekk lii nii man óor na ma ni suñ ci xuusee dinañu gis loo xam ne dafa grave parce que li tax mu mu mu gën a grave mooy que ci yéen ñi ñu yaakaar ni yéen yéen a ñuy taxawal bu dee ci seen biir foofu <clears throat> ci seen ay pratique mënuñu am dara lu leer asumaak taxawaay bi ngeen taxaw pour pour bi cest à lii dafa war a nekk loo xam ne moom moo war a firnde est ci biir hémicycle bi foofu si seen bopp parce que li moom laa lay wax nii dañuy def Sénégal dañuy def benn pas en avant def dix pas en arrière parce que lu mel nii dañu war seet effectivement jusque benn ban niveau mm-hmm. ak ñaata xaalis la coûté mhm. au contribuable sénégalais parce que vider oto dañ koy def tout le temps on peut aussi accepter que ñu vider benn oto mu dal yenn yenn somme yi mhm. ba pare entreprise buy liggéey ak assemblée nationale bi nga xam non li ma wax leneen dafa leer non assemblée nationale moom mooy penc ndaw réew mi entreprise boo boo xam ne dafa am contrat ak assemblée nationale sénégalais yi war nañ ko mën a xam ci benn fan du loo xam ne def entreprise am na ko ko créé am na ay tour c'est inadmissible voilà c'est inadmissible donc je pense que franchement dama bëgg rek nga xam que ni ñun aussi bu ñu toogee dégg dara loo dafa yenu maanaa dañ ci dañ dañ dañ koy dañ koy mais pour ma wax ci benn affaire ma wax ci benn affaire juste mm-hmm. dama ree keroog ci ñoom ñu résilier nañ sax li bu journal bi génnee lañ daw gaaw résilier enquête bi bi génnee bii nii ah. Ah, euh, octobre 2016 ñu daal di daw vers décembre ñu daal di résilier contrat da yaa ngi dégg ñu naan résilier nañ dégg loolu. yaa ngi dégg loolu. du jox motif bi tax nga résilier. te naa ci premier question mu ne. pourtant ñi dañoo déglu yàgg soog a fayeeku. waxu ko. mu ngi jéem a mu ngi jéem a justifié lu tax gars yi di fayeeku lu cher nee na dañu déglu yàgg ba la leen di hmm, parce que il que résilier nañ ko depuis contrat bi ak la woon. ça c'est bu jógee ci Ndoye Bane léegi nii. Oh, déggoo moom laa wax de. Mhm. sama gars yi tiit. wax léegi bu ñu soo ñu dee nañ gaaw mhm. résilé pour gars yi bañ a fouillé. mais xëy na ñoom defuñu woon vidange simple vidange complète lañ doon def dafa am complète ak simple. dégg déggoo ma de xanaa <laughs> kii nee ci journal bi euh, kii. Eh. Euh, rek requesteur en personne. Mhm. nee na daan def ba 160.

deuxième question waat na ni de 21 000 à 53 000. première question da dem ba 166 000 deuxième question yëgul. Moustapha Diakhaté président groupe parlementaire nii El Hadj Diouf góobu mu li wax dëgg la mais bu amee maa ngi moom dina ànd xeex lii waxul loolu. ni bu ma wanee facture yi wane naa facture yi maa ngi nekk Moustapha Diakhaté ànd ak man ci parce que boobu jaar nañ ci kawam. jaar nañ ci kaw président assemblée te xëy na yëgul. mais ñi yore affaire bi la le le ñuy bind fii. scandale parc auto nous sommes en 2000 en octobre 2016. njëkkoon ko am na nag ñu ma lu tax ma njëkk koo wax. ma ne ñu waxoon nañ ko sax di depuis 2016. man kay ba suma bilan fin de fin d'exercice pour la législative laa laa génn waale yi wane nii nag yéen sénégalais yi yeewu leen mais mais euh, jéego Souleymane Faye. Mhm. am na fu wéyee yeewu leen. Mm-hmm. ah sax maa ngi ci def émission. yeewul waa nit ñi war a yeewu <laughs> ma ne bala ngeen a foree ay député yoo xam ne bu ñu demee lii lañ fay def. Mm-hmm. bu su nees rek la def assemblée. voilà <laughs> yéen leen fa teg ñu def lii. Mm-hmm. ngir yàlla écarté leen ma ñii. indi fi suñu député. yu gëm peuple bi. Souleymane Souleymane yow euh, Souleymane. askan bi yow yow ban oto nga yore. de leeral yaa ngi vidé ñaata ngay fay. vidé xeexal askan bi. vidange comme Charles. d'habitude sa oto nu mu mel ban genre oto nga yor. waaw mooy kàddu ma yu si joxoon. d'accord bi la yu joxoon. Euh, mu ngi lay fayal vidange wala yaa ngi fay vidange bi. maa koy fay waaw. yaa ngi koy fay ñaata ngay fay vidange genre. maximum dix mille ah. bon d'accord c'est clair. dix mille dix mille voilà. man dama bëggoon euh, maître dafa am loo xamante ne wax da ko fii mooy que nit ñi war nañu yeewu. 150 euh, députés loolu la 150 députés. membre du bureau am ñaari oto. plus les les les les le personnel de l'Assemblée directeur cabinet Moustapha Niass directeur du Trésor affaires juridiques. ok comptabilité ñëpp dañoo doon protocole ñëpp dañoo doon y' a plus de 200 véhicules de l'Assemblée yuy vidé. voilà c'est des milliards càcc gi daa donc euh, loolu tax euh, damay revenir si ba ngay ne que sénégalais yi war nañ yeewu boo amee 200 véhicules yoo xamante ne législature bu nekk lañ koy jënd. waaw du muy appel d'offre pour 200 véhicules yoo xamante ne tabaxuñu ko suñu dëkk oto yi defaruñu ko suñu dëkk c'est des voitures qui viennent de l'étranger donc suñu ñàkk l'argent des contribuables la ñuy jël di dem di ko jox yeneen industrie di ko jox bitim réew kooku premier problème deuxième problème mooy que oto yi 200 yooyu chaque mois am nga 500 litres mbaa 1000 litres quelque chose comme ça bu ñu xoolee ces 200 véhicules ils nous reviennent. à nombre de brigand 1000 litres. ñun avec ñun député simple yi 250 litres. waaw 250 même boo jógee Kédougou ak Matam. voilà boo ñëwee doo demaat moo tax absentéisme ba bëri. patron yi nekk bureau bi ñoom dëdd fii ci wetu Macky Sall saa yu ñu nga pale ils ont 1000 litres d'essence par mois te duñ génn Dakar. loolu la loolu la moo tax député yi mënuñu ñëw assemblée parce que amuñu lu ñuy assemblée. Hmm. waaw ça que tey bu ñu doon def simple euh, une simple comptabilité analytique pour xool exactement comme nous coûte un député et ce qu'il sénégal yi war nañ xam lu ñuy voté c'est-à-dire que tey il nous faut être éminemment exigeant et d'une intelligence redoutable par rapport à tous ces choix au choix au choix choix xam nga xam nga euh, dañu toll si jamono boo xamante ne man ça me fait rire je passe mon temps à le dire que nous prenons notre temps à jël suñu xaalis c'est-à-dire am benn économie on a une politique extravertie on nourrit l'étranger mm-hmm. oto yu ñuy def yëpp dañ ko jënd bitim réew 200 voitures yi ngay jënd bi tey robuk rien que pour les législatives mhm. ñu jógee ci kaw loolu chaque mois nga joxe entre 250 ak 500 litres mhm. nga mit diviser ko par par par 30 par mois et tu t'en rends kooku député boobu ñaata litre lay am par jour mhm. est-ce que daf koy utiliser premièrement nga xool est-ce que jar na ko ñu ngi jógee foofu ñu ñëw sur loo xamante ne moom mooy euh, les vidanges et ainsi de suite mais naturellement un député qui fait des milliers de kilomètres par an dafa war a dox nous nous retrouvons dans une situation boo xamante ne xamuñu ko mm-hmm. aujourd'hui est-ce qu'un député peut nous dire nous avons un parc automobile qui nous coûte tant l'année et qui coûte pas qui coûte tant aux Sénégalais aux contribuables mm-hmm. parce que c'est ça le vrai problème que nous avons c'est-à-dire que nous finançons fonctionnement wu assemblée mm-hmm. nationale suñu poche jël suñu xaalis parce que ñun ñëpp mënuñ fa dem. mu am mhm. ñoo xamante ni dafa am lu ñu sacrifié. Mhm. pour dem assemblée nationale lu ñu moomul ñoom. pour ñoom lu ñu moomul pour mhm. représenter ñun suñuy intérêt pour représenter loo xamante ne mooy suñu bëgg bëgg bëgg professeur bëgg bëgg le médecin et ainsi de suite afin que nous bâtissions notre cité ñooñu am na dëkk yoo xamante ne valeur am te noonu gën a développé en am na yeneen dëkk yoo xamante ne un député da nga c'est-à-dire que tey le premier exemple du man xalaatuma ko député waruñu ko fay kooku ñemeewu ma ko xalaat parce que je pense que au contraire war nañ ko fay te fay bu jaar yoon un million pour man tuuti na koo xamante ne day taxawal askan wi di dugg si biir nit ñi di dugg si biir dëkk yi dem si biir gox yi seetaan lan mooy seen problème wax ak xale yi surtout loolu yëpp ñëw kooku ñooñu war nañ taxaw mm-hmm. suñ ko defee non dama day liggéey nañu normalement day liggéey normalement donc ça veut dire qu'aujourd'hui qu'on va élire 150 députés ou je ne sais pas yoo xamante ne voilà ce qu'il nous coûte rien qu'en termes de voiture ñooñu s'ils ne sont pas capables s'il n'y a pas de changement boo xamante ne war na leen ils doivent le faire avec beaucoup d'intérêt mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. waaw man man trois points rek laa bëgg wax euh, mais damay résumé <laughs> bu baax <laughs> damay résumé maître euh, par rapport ak euh, li nga jaaxle ci journal lu mu génnee apparemment Sénégal yu bëri yëguñu ko woon fenn nga xawul bàyyi xel tuuti parce que yow tu hyper médiatisé. Mhm. yow euh, macha allah catawuma la mais possibilité bi nga am en terme de communication xëy na audimat boobu journal bi amu ko. c'est vrai c'est important. nga ah, waaw nga téye ko. beneen beneen aspect bi beneen aspect boo xam dafa am solo mooy pour man euh, c'est c'est c'est plus qu'un scandale c'est une catastrophe pour man. Mhm. et que aujourd'hui je te parle même plus je parle au au Sénégal dans sa globalité. Mhm. nekkatul sa combat. lii léegi c'est la justice qui doit se saisir de cette affaire yow sa jaan wàcc na pare da ci war a pare en fait da nga ci war a pare leeral na euh, waaw leer na am na yegg <laughs> non ça on le concède moi je le concède euh, beneen aspect bi am solo comme dañuy dem si beneen législature et tout beneen euh, législative et tout man fi ma dama koy wax c'est un éternel combat une revendication bu yàgg ci man le profil du député mhm. kan moo war a nekk député xam nga dañ nekk en 2017 ñi ñaa ngi avancé Euh, bu ma fenee nga nga corriger ma parce que dañuy wax même ci texte yi les maire est-ce que gis nga li importance su maire dans ce pays. Mm-hmm. transfert de pouvoir yi. Mm-hmm. dafa am solo léegi au Sénégal la mm-hmm. la l'importance des maires et des maires. c'est sûr mais dañu ne un maire doit savoir lire et écrire pour nga mën a nekk maire dans une commune. mais comment un maire qui ne gère qu'une localité très circonscrite limitée dans le temps et dans l'espace dans tout ce que comment on peut limiter cette personne am ay obligations minimales entre guillemets. Mhm. et que ñu autoriser un député qui a la capacité de changer les lois de son pays mhm. sur la base d'une simple proposition. Mhm. te mënul lire mënul bind. il y a problème. il problème maître man pour man l'enjeu principal de l'Assemblée c'est déjà parce que il est bon nga am 150 députés 2 députés 3 députés le nombre xëy na c'est relatif c'est un débat mais compte tenu assemblée profondeur réflexion yi proposition yi mais il faut moom soubassement man le profit du député moom mooy urgence bi déjà avant ñuy dem si les anomalies le oui, c'est un minimum les, les un maire il gère parfois cent mille personnes un il député raison. Mhm. il a droit de regard sur mhm. quatorze millions de Sénégalais boo xoolee et il sait pas lire ni écrire Papis mhm. dama andi foofu noonu dafa am benn escroquerie bu def assemblée nationale xam nga boo bëggee lekk xaalis da ngay ay travaux pour budget bi génn ay millions. ah bon ñii ñuy gérer budget yi noonu la ñuy def en général. Hmm. parce boo génnewul ay boo deful dara. doo mën lekk xaalis budget bi. Bouba ngi chanté de fan yii. Bouba xam nga li ma lay wax. <laughs> ngi chanté ci xam nga ñi yore budget yëpp muy DG yeeg. ñi dañuy créer benn affaire pour mën a jël ay entrepreneur déggoo ñoom mën a surfacturer am ci. comme daal ma war a def benn émission bu bees ne plateau yi il faut mu am pour mën a kii. voilà mais yéen bokkul ah dama am ay plateau yu bees. yow bokkul yow bokkul yow bokkul chanté après quoi. billaay boole ma ci <laughs> mais par contre ci état bi laay wax euh. fonctionnaire yi en général. Mm-hmm. xamuñu assemblée. soo genre néegi néegi ñax yooyu ci kaw ñu ne ay kii la pour interpréter yàq yàq bi xam nga assemblée ay architecte français yu ay ñoo ko defaroon yàq nañu architecture bi yëpp yëgal nañu ci kaw ay ay cabine ñeent juróom-ñett bi ngeen di Soninké bi séeréer bi bi mandeng bi wolof bi tukulóor. waaw mais aaral bi ci la bokk maître mais ah. ñu ne pour la la ñu ne pour interpréter xam nga fa naa fekk la bu ñëwee ci liggéey commission mu ngeen gisoon li ñuy liggéey ah Mansour yi laa jógee ñooy dem plénière di feeñ waaw commission amul loolu amul interprète fa liggéey ba am ñuy lire texte yi di ko approfondir càmbar loi bi ah, parce que membre de la commission ay maximum ay 30 la ñu nekk ñu mën a tëju liggéey kenn ci ñoom jàngul école kenn ñoo mënul lire te amul interprète saal ba la ñu mën a interpréter pour pour sëlëm nit ñi ñu leen léegi man fi ñëw léegi indi naa fi lii xoole li ma yokk fa am débat profond ñu approfondi toj di toj commission duñ la duñ la limité ngay toj di toj am ku lay interprété ministre bi day ñëw commission président commission toog ni ministre bi ñëw ak ses conseillers techniques directeur de cabinet secrétaire général du ministère ah député toog en face ñu ñu ne loi constitutionnelle loi organique loi ordinaire portant sur tel yow xamoo sax lu ñuy wax langue de travail le français c'est la constitution mais mais pourquoi donc ñu leen ci plénière ba li ñi nga xam ne commission xamuñu daal xamuñ dara ci li ñuy wax ñun dinañ ñu ne ñoom la ñuy jottali la am plénière ba c'est-à-dire ñu ñëw wax deux minutes ñu limité la deux minutes trois minutes dinañ toog ñooñu la ñu naan nañ déglu li ñuy wax kon ñoom bokkuñ ci liggéey bi te liggéey bi c'est en commission mais ñu ne ñu oui oui dañuy def fi léegi ay interprète ay nangam yëpp am na mais commission amu fa duñ ko wax ci rajo yi de dañuy nax la ñi amul ci commission yi. néegi ñax yooyu ñu def ci kaw. palanteer yooyu xaw ma palanteer yooyu ñu def ay palanteer. ca kaw amul amul commission. <laughs> donc loolu aussi bëgg naa ko mhm. mhm. a un niveau qu'il faut. Mhm. y' a une formation comme li le disait ñun dañu doon former idéologiquement. et c'est la mode des idéologies. da ngay gëm dara xam li ngay wuti assemblée. par exemple man pourquoi moom mi am problème ak ma nee na day gis maanaam xarit diw la waaye ma di ko dal. peuple bi ma jaral ma sama xarit mere ma peuple bi ma fal bu ma demee assemblée damay sënni rob suma parti teg waa kër Macky Sall bu ñu defoon noonu ak waa kër Moustapha ak opposition bi seet rek intérêt réew mi waaye dama contre Macky Sall lu mu indi fii ma bañ loolu loolu aussi caaxaan la mm-hmm. waaye dama ma Macky Sall yàlla la du juum lu mu indi rek ma wate ko loolu aussi ak ñaam lay nekk. ci député waru nekk jaamu kenn. ndax ni ñu falee Macky Sall noonu lañ la falee. dañu dem wote ba ngoon jot ñu ne ñu député nga. mais comme Macky dugg ci listam y a un devoir d'ingratitude. waaw mooy Macky fexe ba mu nekk député waaye nag nag xam ne nag député laa. sama cëru député dama ko bàyyee li ma moom dama ko bàyyee. mooy askan bi lay défendre. Mm-hmm. liggéey sa liggéey. moo tax ñu naan gis naa ñuy wax fi la waaye moom nee na Macky xarit la waaye du dëgg du nangam parce que ñoom ni ñu gisee xarit mooy jébbalu ci nit. acte d'allégeance te man amitié mooy sa géeru ki xasoon na sa doomu ndey rek moo la koy wax. Mm-hmm. ku ne sàngul sa taar la bëgg. Mm-hmm. chaque jour maanaam Macky Sall Khalifa Sall da ngeen koy jaay doole ba leen ko. ñu ne yow kat Khalifa Sall Khalifa Sall xamu fu dëkk ak weeru koor bi xamoo ban kàcc la dëkk. toujours ma nekk ko mosuma lekk ñaar dërëmam mosuma may bur sama mbokk mosuma am teraangaam wala sama mbokk Papa Fall noonu Barthélémy Dias noonu mais bu ma gisee ne dañu bëgg a néewal doole su ma xaritoo Macky Sall fàtte naa ko. dugg ci euh, Khalifa Sall léegi nii. dégg nga Pape Cheikh ca la mm-hmm. comme gis naa ñu jaay doole nit. comme ñu jaayee yaay jaay di koy jaayee doole di ko da ngay dem ñoo ñu koy wax duñu ay Gambien. xam nga fu cëppoon ma ñëw ni ko da ngay dem yaay jàmme ngay bàyyi ci boppam ca laa taxawee noonu dama ñëw rek dama moom dem na noonu la ma yàlla bindee rek bu ma gisee ku ñu jaay doole ci du yoon damay taxaw wax mu jaaxal ñëpp nag mu jaaxal ñëpp et comme des fois euh, laay ndogu kër Marème mag yi mu toppatoo ñu parce que sama xarit la mais yàlla xam na ni bu ma xalaatee ni lii muy def du yoon fàtte naa xaritoo gi bu ma ci meree sama yoon mais dëgg muy mujj dara bi bañu ma contre mais mu ci dëgg ci dëgg la may oo te dëgg nag ku ko ragal gëmoo yàlla yàlla mooy dëgg yàlla mooy dëgg mais Sénégal li ko yàq Pape Cheikh li ko yàq mooy nit ñi dañoo jiital intérêt xëy moo waxee li Macky du ba falaat député xëy moo waxee li Abdoulaye Wade mais man groupe parlementaire Abdoulaye Wade laa bokkoon bu dul Wade bi may agressé dóor nañ ma kurpeñ pourtant ñoo bokk benn groupe mais nit saaga dem assemblée te ñoo bokk ñoo ñoo bokk rek benn bokk yaakaar dañu may saaga fii nii seen seen seen studio bi te ñoo bokk benn bokk yaakaar. yaa ngi benn bokk yaakaar ba léegi. ba tey jaaxal war na leen jaaxal yéen Sénégalais yëpp que nekk membre de la conférence des leaders de benn bokk yaakaar mais à l'assemblée dama choisir rek non inscrit cas unique moo tax yéen yéen yéen les journalistes qu'on appelle les historiens du présent. war ngeen def étude cas sur El Hadj Diouf ku ànd ak Macky Sall fal ko boo ko benn boo ko yaakaar ñu dem député mu ne Macky doo may député parce que boo ko boo ma ko mayee foo ma xooloo laay xool ku la abal gët fu la xooloo ngay xool. ma ne ko président dama jël sama 20 millions en 2012 fal naa la ba pare benn boo ko yaakaar damay demal sama bopp assemblée nationale. dafay caution 20 millions def sama liste yàlla may ma li ma may ma dem nekk waaye ñu ne ñu ne parti yu mag lañ ci man gëmuma leen maa leen ëpp doole pour man léegi soi-disant grand parti kenn ci ñoom ñoomul dem moom kenn parce que bëgguñu compter ko ndax ku ci cité ba am 3 député wala 4 député ñu xam ne jeexal nga muy PS AFP LDP IT yëpp dem question ah ah, ah, ah ah léegi léegi léegi il est du matin déjà. Euh, j'aimerais bien que professeur. donc leer ko par rapport ak euh, lii maître El Hadji wax. j'avais juste une question rek. allez-y bëggoon poser si loolu. il faut que ñuy gaawal affaire yi aussi li ma xaw a jaaxal tuuti rek. pour dugg ci point yëpp euh, waaw damay gaaw si mbir mi kay. Mhm. li ma jaaxal mooy li gars yi assemblée lii je pense que assemblée le choix choix des députés dañ ko war a analyser en amont parce que boo xoolee xoolal rek ce qui se passe présentement ñi ñu investir ñëpp a ngi yuur mennum Mimi Touré laa dégg kuy nekk je reste dans le parti damay ak gunge président de la République mais ñi si des yëpp koo ci gis mu ngi lay ne way man je démissionne du parti j'ai été trahi je démissionne de la coalition je gèle mes activités c'est-à-dire que askan wi taxu leen a jóg li leen tax a jóg mooy seen poche maître que ce soit ñoom que ce soit yéen ñëpp député yi parce que man je ne peux pas comprendre euh, par exemple nga jël euh, une voiture qui coûte 40 millions nga jënd si 200. alors que man je me rappelle j'étais tout jeune sama nijaay c'était un député mais ay 405 404 la ñu yoroon et il passait deux jours dans la sur la route pour rallier Matam. mais lu tax vous ne pouvez pas vous faire payer par exemple ay oto yu ndaw yoo xam ne dina leen tax dox seen soxla ngeen économiser xaalis askan wi yëg ko mais yéen c'est des salaires yow léegi léegi sànq si sa waxtaan dégg naa ngay wax aussi que bi nga nekkee si euh, législature Abdoulaye Wade bi tu étais euh, yow yaa ne kon président commission urbanisme et tu gagnais 3 millions de plus. Mm-hmm. lu tax ngeen di nangu loolu. il va répondre sur ça en même temps bu ba posé waale question. on fera cinq minutes par question pour mën a teel a jeexal. Khalifa Sall pétrole euh, euh, si li nga euh, xamante <laughs> si li nga xamante si projet si si si facture yi laa wax si facture yi. Mhm. facture bi processus lay jaar. Mhm. day jaar d' si da ngeen di choix souscription mooy am. entreprise buy traité ah oto yi. bu passé souscription après ñu jox leen leen benn euh, dossier yéen député yi borom oto yi yéen a koy visé. Mhm. bu ngeen ko visé ba pare mu dem si caisseur. Mhm. bu jógee ci caisseur ci lay doog a dem si mécanicien bi mu vidé ko. Mhm. après ñu indiwaat dossier bi ngeen xool ko approuvé. mais est lu tax yéen 2014 ba amul kenn ku def observation pour ñu xoolaat mbir mi. ma tontu la waaw oui na na na Bouba yóbbaale question wu <laughs> Bouba. man kay après on fera 5 minutes par question bi ma am. lu fait que mu décider moom demal boppam ci élection législative yi léegi est-ce que y a des chances pour que nga bañ am député. loolu mun am yow bu ba ah non dama c'est question. peuple bi xam li ma koy liggéeyal dama def. waaw mais non parce que parce que la dernière fois. yow respecté peuple bi. waaw non mais mais euh, question la rek de. xam nga waxuma la doo am député dama la demander.

voilà seen question objection voilà seen question donc da ngay répondre Adia ñu ñu ñu tëj ko. dugg ci Khalifa Sall. commencé par Bouba soog a ñëw ci Adia. ak yeneen pour yeneen xam nga président bu soog a falu. def état de grâce. ñu fal la mars. avril mais juin. deux mois et demi def élection. tout nga lépp ngay raflé. moo tax amoon député day jafe. xam ko PS ay ponkal la politicien lañ ay AFP ñu dem bokk ci ginnaaw xale bu naw bi Macky Sall. kenn ci ñoom mu def listam nga xam ne lépp lay raflé ndax ni mu woon présidentiel bi tendance boobu day am gis nga mag Emmanuel Macron lépp la dana raflé ji te loolu la même Mitterrand bi mu ñëwee en 81 dafa dissoudre assemblée bi ñëw raflé tous les sièges loolu moo am man ma ne président Macky Sall mu nee ma naa ma ne ko doo ma may député dana métti nag waaye damay dem damay demal sama bopp xam nga loolu fit bi ma amoon ànd ak Macky Sall ànd ak Moustapha Niasse premier tour muy Benno Siggil Sénégal ñu xëpp li ñu am yëpp Macky Sall muy Benno Bokk Yaakaar deuxième tour ak Benno ak Tanor ak Idy for président ah ak ñoom Ibrahima Fall ñëw Juma Ndiaye Ndiakhate ñëpp ñu ànd jox lépp Macky Sall mu ngi démarré campagne ba ak Youssou Ndour mooy lam créé woon keroog xaar yàlla terrain xaar yàlla ba waaw wër ndomba xaar yàlla ba non am na ko tuddee village village électoral village électoral yaa ngi rappelé wu keroog fañ def su premier meeting bi ci topp ñu defe ko ñu defe ko place de l'obélisque ñu ne président ñu defoon ñu demoon président jox parole ba ñes pare Abdou Aziz Diop nous passons la parole à Macky Sall gars ko déedéet El Hadj Diouf El Hadj Diouf te mu du woon candidat place de l'obélisque Aziz Diop ni c'est le peuple qui réclame El Hadj Diouf alors ku doon candidat dooy waroo jël pa ñoom Xaasim Jaa jëloon parole mhm. ñoom Cheikh Bamba Dieye ñoom Ibrahima Fall gaajo Tanor Dieng Moustapha Niass ñu ne Macky Sall maintenant ñu ne ko déedéet El Hadj Diouf boo amul nag kenn jënd ma na def objection Aziz Diop ni je donne la parole à El Hadj Diouf parce que c'est le peuple qui le réclame parce que boobu après 23 ba léegi maa xew jamono moo tax ma ni bi loolu amee ñu dem présidentielle bi ñu demee législatif ma ne kat nag man nag ko ko peuple bëgg. Mm. xanaa nag dama dem ne bokk nag ko yenn gars yi gars yi ragal ko peuple bi ma réclamé bëgg ma. maître objection. yaa ngi propagande propagande. non ginnaaw mu fal Macky Sall propagande duñu ko nangu. non non propagande ma damay affichel ma CNRA en même temps. voilà non non propagande propagande ma. voilà merci. non damay rappel rappel historique la ils sont en train de superviser tout ce qui se passe. nous sommes en 2000 nous sommes en 2012. il faut aller vite sur le. voilà nous sommes en 2012 voilà voilà. dama ne ko nous sommes en 2012. mu ne ma naka nga am député. Hmm. fa mu gënoon a méttee laa wax maa ngi fa député. fi mu gën a yombee ndax entre temps. ñi génn nañ benn bokk yaakaar ñi mel nañ Macky Sall ñi dinañ ko sanctionné ci vote yi entre temps aussi El Hadj Diouf l'homme du 23 juin yëngatuwaat na wane fi loo xam ne ñëpp kontaan nañ ci moom. de député di jokk affaire nag. nag du yow rek yaa nekk l'homme du 23 juin nag foofu rek lañ dul daal. mais nag mais nag De Gaulle De Gaulle l'après 18 juin noonu la mm-hmm, mm-hmm. pourtant amoon na amoon ay officiers yu ko dar mais De ba doon leader bi. Mm-hmm. ay xar ak ay nag bu ñu àndee buuba. <laughs> il faut ba kenn ko jiitu. 23 juin la Yann Amar keroog ci biir Yann Amar du député. mais ñoo ko moom de. xeex ba ci hémicycle ba nga gën a bu ñu xeex day am ay supporteurs nañu sax crise cardiaque dugg ci kaar yi di ñëw supporteurs yi mooy Yann Amar mooy Macky Sall supporter la woon ñes yore xeeram di supporter man ma nekk seen seen seen leader seen roi des arènes ci biir biir hémicycle bi jiite combat bi pour le le peuple est dehors. oui. il fera face. lii nga waxoon ah waaw. il ne l'acceptera pas. waaw ah, waaw. loolu nag maa ngi ko mënoon a wax. Mhm. l'avocat du yow rek du yow rek la rue d'abord eh mu ngi nii 23 juin. c'était la rue ah, d'abord le 22 juin waaw duñ ko teg mais du woon yow 23 juin nii. maître c'était la rue d'abord. non non mais nag xoolal. yow da nga aakimoo affaire bi da nga fàttali ne doon xeex ak yow yëpp. te loolu lañ dul d'accord mais buuba. am na ñeneen ñu fi nekkoon xeex comme yow. mais dëgg la buuba buuba déggoo il n'était pas seul. pour libérer la France. Ah, mais doo déggoo de. mais maître c'était le leader. maître maître. maître s'il vous plaît. c'était le leader moi j'étais le leader à l'Assemblée. Cheikh Bamba Dièye. jëli na ba papi la parole Babou Dieye waxul le 23 juin bàyyi leen waxi dof yi ngeen wax maintenant on va clore on va clore voilà on clore nañu clore bi dugg nag ci euh, Khalifa Sall et je je rappelle la je rappelle que mën nañ ko def 5 minutes par question ci ci 3 points yi nga xamante ni moo ci def après ñu jàll ci eh, internautes yi c'est eh, son avis <laughs> kum neex te nga ne yow yow jàll nga fara oui am nga waaye ne neexoo neexoo waaye def Bombardier bi roi des arènes kum neex kum naqari l'homme du 23 juin du Bouba Ndour allez-y Khalifa Sall maître on y va lan nga ciy tontu. voilà le premier magistrat du. Dakar non non. c'est le premier le patron de Dakar. Mhm. même président Macky Sall à Dakar Khalifa chef am c'est le premier magistrat de la ville. ku fi rek moo yore caabi dëkk bi moo koy joxe président Macky mooy président Sénégal. waaye capital bi mu yeewoo am na fa am na fa kilifa. Ah, il nous faut une culture politique maître. je suis content lu ngay wax il faut une culture politique. au Sénégal c'est le premier magistrat de la ville de Dakar. <laughs> ku toog Dakar muy Bouba Ndour muy El Hadj Diouf muy Macky Sall Khalifa Sall mooy sa chef ndax moo yore caabi dëkk bi bu la dëgërul doo dugg loolu nañ ko xam culture démocratique Charles a raison nañu élever le niveau de la conscience politique des Sénégalais yi ma ni Khalifa man miinu ko. xawma ko xawma këram ba léegi nii xaw ma ban quartier la dëkk parce que masuma ko laajte xaw ma Faris dans dëkk xaw ma Point xaw ma Maris xawma ma Géejawaay xaw ma mi. <laughs> fiñ mi ci Géejawaay parce que masuma ko présent masuma ko fréquenté. <laughs> je l'ai jamais fréquenté. <laughs> masuma toog ak moom añ wala reer wala ndékki. yàlla moo ma natt ku ñuy jaay doole ku ne bu ma yëg nañ la jaay doole rek ba daal di sama rob ñu naan dafa bëgg xaalis yow défendre Bamba Fall Bamba Fall ak ak Cheikh Bamba Dièye euh, ak loolu euh, la Barthélémy Dias ak ak Khalifa Sall ñoom ñoo ëpp xaalis Macky Sall ni ñëpp wun moom damay dem këram dafa reer di nekk ñu ànd ba Makka ci président buur bi Riyad Salman premier président mu recevoir mooy Macky Sall El Hadj Guèye ko ñu ànd Makka sama turando dem si Medina sama turando ñu seq talanga yu bari ba nag moom. mais chaque fois ak ba yëg ni mu ngi jaay doole nit ma jànloo ak moom ba gars yi mi ne man dama ko bañ El Hadj bi da la bëgg sa noonu la ba mu ko mais bu ko gëmee man ko man li ma gëm mooy yàlla xam ne ci dëgg laa nekk moom moom laa bëgg mu mu bàyyi erreur ndax nit la nit day juum te ñi ko ñi ko ñi koy indil ay noon di ko wutal noon di ko jàppaloo xalifa te xalifa deful dara ñooñu ñoo koy dugal ci gutte. ba ñu ñi mere ko parce jaay doole baaxul yàlla bi bëggul ñu jaay doole doomu aadama ndax dafa fonk nit un maire alors qu'on dit que toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à sa condamnation définitive kan moo gën a am garantie de représentation qu'un maire xam nga bu ñu wax liberté provisoire dañu naan ndax am nga garantie de yow mi bu ñu la bàyyi di nga ñëwaat bu ñu la wooyee maire fu ndaw jëm kenn xam nga ko mën na ko may liberté provisoire ni ko may Ablaye Balde dama leen wax rek xam nga Balde kër yi topp na ko may ko liberté provisoire am na wala amul pourtant la te maire bi moo ëpp doole maire Ziguinchor dama leen wax droit laa leen di wax. waa kër yi bi ñu ooyee Balde dañu ko may liberté provisoire ñëwoon may code woon prison bi ñu ooyee Khalifa Sall sans ñu am preuve dañ koo tëj parce que même preuve ku koy am ki àtte ci à la toute personne arrêtée poursuivie et présumée innocente jusqu'à son jugement définitif loolu la loi bi wax ma ne ma xool Khalifa Sall ba yàgg ba yërëm ko ma ne ah Barthélémy Dias da nga bëggoon delluwaat prison moom mooy ñu doon ko 6 mois ferme pour que du mën a présenté bu def appel ma def appel ba ma faa ñu ne assassinat ma lii plainte bi tarar jee bind plainte pour assassinat violence voie de fait blessure, cause de blessure, contre Cheikh Ahmed Bamba Fall, Birakar Ndiaye et autres X. yii ñëw di bëgg a nax nit ñi di wax lu leen neex naan plainte contre X la ñu bi huit mois gis kenn ku ni kii moom Bamba Fall moom a def loolu. gisuñ ngànnaay gisuñ paaka gisuñ jaasi gisuñ fetal ñu ne assassinat tentative d' assassinat mooy Cheikh Bamba Fall bu koy rey Tanor Dieng. nervi yi wane ci image yi jàppuñ benn nervi yi ñu ne xëppante suuf ak ndox dañu épargné dem jàpp ñu doon réunion ñu ne woo piscine olympique ndax am na waa Dakar bu ñu amee coordination ñu réunir jeunes yeeg yooyu bu bureau politique wala ñu dem mobiliser réunion dem fa ñu ne woo ko ba wala réunion rek piscine olympique benn journal boo xam ne benn ministre moo ko moom ci mooy génne njaaxum yi su bu bëggee dugal nit ñëpp xam moo tax bu bindee bind bi am njëriñ ñëpp xam nañu bi bind la bu dugal lii ci la rek pour neexal gouvernement bi ni preuve yi olympique waaw ay coordination régulière amuñu droit réviser piscine olympique réunion amoon na la day am chaque fois la veille pour ñu préparer seen bureau politique Dakar day coordonné pour ay position bu ñu demee nii la wax pour ñoom bu ñu mënee ñu bañ a seen wax euh, euh, ki jaar ni ki jaar ni ñu ne c'est ça la position de Dakar au bureau politique ñu ne réunion boobu nag mooy preuve ni dañ préparé woon coup ak yomb Sénégal léegi dama ci metti dañu jël fenn di ko travailler. di ko araw liggéey Khalifa Sall naan dafa def surfacturation ma posé la benn question yéen jàng ngeen de li ma fa <laughs> mais yow bi jàng grand journaliste maire dafa yore kees boo xam ni bu commande maire bi defee commande moom mooy fay en espèce. ba mooy def virement bancaire wala chèque du trésor pour fay fournisseurs yi. bu dee day commandé ceeb ay boo def 30 millions ak ay dugub boo def ne percepteur def chèque fay fournisseur bi. ma ne su ma gis maire boo xam ne ci Sénégal am na kees boo xam ne bu bu commandé bu maire bi commandé dara comme meew bi xam nga meew bi c'est commandé par la mairie percepteur mooy fay euh, meew la lay à l'école parce que maire du du trésorier du comptable. du denc xaalis pour bu commandé dara bu commandé dara percepteur mooy fay par virement bancaire wala chèque de trésor fournisseur bi mais fournisseur du ñëw ba ci maire bi ne ko jox ma mu compté 32 millions jox ko ceeb ak dugub c'est pas mais comme ni mu ko waxee Sénégal moo compliqué génne ay procédure dof depuis Lamine Gueye ñu bind bon ceeb dugub pour génne 40 millions après 30 millions jox ko maire bi jaru ko ndax conseil municipal voté ne ko ba pare. te chaque mois président maire bi am na de millions de fonds politiques bi foo ñëwee pandant 6 mois boo beaucoup millions percepteur municipal. daf ko indi ko mais grand. chaque mois sa 30 millions yi mu fi. doo ko jël mu ne ko aban ah, man xamu pour lan la. mu ne ko mais nii la mu ne ko mais lii lan la. mu ne ko non muy Pape Diop confirmé na ko moo fee ne leen Pape Diop Pape Diop confirmé ko. nee na noonu def. parce que GIE boobu ñuy wax ay taar xaw ma mais euh, fi la avant avant kii di ñëw la xalifa xalifa xamu leen xamu ne GIE yooyu kon même fu fu defee foo ñu ne ko xoolal ñii yàgg nañ fi ah Pape Diop Mamadou Diop Samba Gueye Lamine Gueye ñii la. c' est une procédure rek boo xam ne man bokkum maanaam maay wax ak yow percepteur dañ koy habillé nii rek mais yow si yow nekku ci sa forme politique la. voilà mais léegi forme politique. Mm-hmm. mooy loo xam du changer du varier chaque mu tombé. Mhm. muy muy 30 millions. nañ jàll ci beneen point léegi. non pare gu ma ci xalifa. Ah, ah, ah. <laughs> man li may xaw a xaw leen neex. si neex na non non non ñun dara wu ñu maître. dama ni dama gis gars yi fii ay plateau fii. dañu bëgg am lu ngeen di wax lu ngeen xamul lu ngeen xamul. dañu bëgg am na aussi benn manipulation bu jog ñaan waaye moom it nag warul ne man damay def comme ñëpp moom mi def na erreur parce que autorité facturé fan la surfacturé. moom xamul sax ay GIE xamul dugub xamul ceeb mais entre daf directeur administratif et financier ak percepteur. Mhm. ñooy def seen montage boo xam ni état bi ko sant. moo tax Mbaye Ndiaye nii yéen honnête boo àndee état bi du am problème léegi comme Khalifa dafa léegi code état bi il faut ko problème ci mbir moo xam ni fi la ko fekk. Mhm. est loolu vraiment c'est honnête. <coughs> loo xam ne dañu ko jëlee sa xaalis lu mat 180 millions yu tagaloo jëlu ko percepteur boo ko di ko mais grand xaalis bi sax fonds la. Mbaye Touré ko sa fond politique la nii la woon ak Pape Diop Pape Diop confirmé ko Mamadou Diop confirmé ko Samba Gueye bu ñu ko yeewoon ci bàmmee bàmmeelam moom Lamine Gueye ñu confirmé ko ki téye doomi jàngu naan ko lii Pape Diop doon def ci ñu sant ko ko Mamadou Diop doon ko def ci muy yoon Samba Gueye mi dee doon ko def ci muy yoon Lamine Gueye nii ñun ñoo dof naan nañ def rek ceeb nii rek pour génne jaru ko woon na mënoon a génne san loolu mais cuune administration la nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est l'administration elle-même qui a fonctionné ainsi, qui a choisi ce système pour sortir des faux politiques. Mm -hmm. Et en droit, j'ai appris, moi, mhm. juriste, pour clore, que la coutume fait partie des sources de droit. Il y a la Constitution, la loi, la jurisprudence, la, jurisprudence mhm. la coutume et la doctrine. Parce que juste, vous saisirez, amul droit ba ñu statuer loolu mooy déni de justice bu ñu ko prévoir woon day dem seeti jurisprudence mooy lan lay àtte woon bu ko amul monsieur Coutume lan moo xewoon bu ko amul dem docteur laaj laaj professeur de droit yi lu ñu bind ci mbir mi kon gars yi bàyyi leen Bakar Khalifa Sall heure bu dee minute bu nekk seconde bu nekk nekk prison Bakar la te du jig Macky Sall gis bu ba léegi Khalifa Sall li fi ci dëkk yu mag yi ci tali yi ci teeru président yi ci Dakar ci ay bétanti ñi xam ne jaay doole bu amee ci réew réew moom du am jàmm mu mel ni xalif bu baax bi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waxoon na ko ba ñu mhm. ne bu def attention dëkk bi dina am ay ay malheur yu bëri. maar day taale bu ñu bàyyiwul tooñ. yàlla nañ ci yàlla musal bu ñu bàyyiwul tooñ. Mhm. dëkk bu ñuy tooñ. yërmande yàlla dafa wàcc. tooñ baaxul. kon ma bëgg sama xarit Macky Sall bàyyi lu mu gën a gaaw Khalifa Sall. ndax yàlla wàcc yërmande ci Sénégal. tëju Khalifa Sall jëriñul dara Macky Sall. c'était l'appel de Souleymane Faye Keroog. Euh, deuxième point bi pétrole bi euh, rapidement question bu nekk cinq minutes. amul problème waaw Aïcha loo ciy wax. lu ngeen ci wax rek loo ci wax. Aïcha Adia ci pétrole bi ñu dem gaaw. Euh, doog a jeexal ak euh, Qatar. waaw jàll ci intervention le flou total. Mhm. pétrole bi pétrole bi premier ministre wax nañu amul dara lu ci lëndëm. xam nga pétrole bi man man man li tax man dama daan leen jaaxal. Mhm. au moment muy critiquer Sall. kii nu mu jàpp Khalifa Sall. mais jox naa ko dëgg ci pétrole bi jox ko dëgg rakam Aliou Sall ci pétrole bi. xam nga loo bañ bañ nit. bu mu tàggat di ko sosal. di ko fenal yàlla di la jéppi di la lakk. bu mu doon wax tey ndax mañeel xam nga pétrole. benn génnagul. déjà il faut que ñu indil professeur Café ah ak Papis. pour recherche yi <laughs> pendant la phase de recherche d'exploration amul benn taxe dafa am exonération am benn waay bu nekk impôt ñu dàqoon ko fa kenn xamu ko bi bëgg a wut tur te du wax dëgg jamais taxaw naan pétrole bi dañoo war a fay pétrole yi ma milliard ma porté leen plainte yéen a porté loolu. moom ñoom ñëpp ay ñoom suba goro bi moom Lamine Diallo ñoom ñëpp di wax dara xamuñu ko li ñuy wax mais booba bañ nañ Macky Sall bañeel goo xam ni ndax ki dàq nañ ko ba perte place ñeneen ñi aussi bëgg nañ jël place su Macky Sall tax ñuy wax lu dul dëgg. xam nga lu am pétrole bi. Frank Timis bu jaayee ay paaram. ay milliards lu mën a doon am na ci droit te du fay Sénégal ñaar dërëm xam nga lu tax tant que ñu doon seet explorer ay risque la ay centaine de milliards lay def pour gis moo tax exonéré ko ni ko loo ciy def après parce que risque ngay jël ba nga dem ma yaa nga sonn jaay keneen continuer ndax gisaguñ dara loolu wax bi wax mais gisaguñ dara mooy la phase d' exploration de recherche exonération totale code pétrolier waaye yow nga nekk fële di wax loo xam ne xamoo ci dara ñu naan pétrole pétrole te xamuñ ci tous ba mm. pare mm. Abdou Mbaye signé na Souleymane Ndéné Ndiaye par Karim Wade ak Ablaye Wade contrat bu engagé Sénégal Petrotim Petrotim Sénégal moo nekkal Petrotim fii Sénégal mm-hmm. ñu yónnee Aliou Sall comme genre facteur pour dem déposer ci dossier bi ñu ne Aliou Sall am na ci dara te amu ci dara gars ñoo ñeme yàlla. mais mais mais mais mais mais moom. non c'est pas possible. man damay damay revenir si. opposition bi léeg-léeg mu léeg-léeg mu def yoo xam ne ay ay dar ay nar yu garaaw a garaaw. wax lu dëgg rek pour yàqal Macky Sall. mais non non man li may critiquer Macky Sall ci dëgg laa koy teg. waaye pas sos. waaw vas-y vas-y vas-y Bouba vas-y Bouba c'est-à-dire que xam nga des fois nous on a du mal def pour discerner le. yenn yi pas yenn par non politicien bi ak avocat bi. Mm-hmm. parce que aussi nekk fépp moom yàlla rek ko mën. maîtriser dossier yi. non non du sax loolu non non non presque loolu la de. non bu mu dugal. Ah, yow yaa yàlla xëy na man kay du ma yàlla. yow mi ñeme yàlla bay de wax li ngay. Ah, non dama ne. dama ne yaa ngi dugg malaaka kenn xamul lu ah, <laughs> mais ne malaaka bi cëpp ak sa weexaay. waaw d' mais mais lu ma lu ma lu ma bëgg a wax rek pour pour rester ci ci euh, ci li nga doon wax moom mooy man man su ma lay dégg ngay wax. daf ciy bëri dafa nga nga nga jégal ma mais dafay bëri ay contradiction parce que parce que parce que parce que dafa am dafa am yenn yenn prétention yoo xam ne ah nga nga maître El Hadj Diouf nekk député président Macky Sall nekk président ñun ñëpp ay sénégalais ku nekk rek am nga droit wu réclamer quelque chose parce que dafa am ay jéego yoo yàgg teg def benn affaire après def euh, son contraire yàggul daaw daaw jéeg ah. bi ñuy waaj a libérer Karim Wade et ñëpp xam nañu que taxawaay bi nga taxawoon ci procès Karim Wade pour l'état du Sénégal ñu jiiñ ko ay milliards yu bëri ñaata milliards la woon bëri woon na. waa milliards waaw 133 milliards. nga taxaw ci taxawaay yow nga ne yow yaay député du peuple. nga taxaw ci pour Sénégal ne nit dafa luubal 138 milliards. je dis bien 138 milliards. cette même personne la ah ñu dem yóbbu ko jugé ko denc ko. nga xeex ba ñu denc ko yow nga jógaat solaat sa dàll devant le toute la république nga dem présidence jël micro bi pour ne nañ ko gracier ma lay laaj par exemple soo taxawalee état du Sénégal mooy man nga taxawal mooy Charles nga taxaw mooy ñëpp fexe ba ñu condamné nit 138 milliards yow ban ban prétention nga am pour ñaanal nit boo xam ne dañ ko jiñ 133 milliards yow nga nga bokk ci ñi ko tëjlu alors que boo demee rëbës fii am na benn nit boo xam ne am na sàcc na fa benn 1 million te taxawal cest dama bëgg xam benn affaire parce que fi nga ñuy yóbbu dafa mel ni yow yaay messi lépp lu am rek wala fu fu fu coow amee rek yow yaa ko mën a rek pour pour pour ñu war a jéggal maître El Hadj Diouf parce que sa voix moom moo autorisé. te ma ma ma macha allah macha allah voilà mais non mais non mais, mais parce que parce que en fait en réalité man je suis j'ai un problème euh, personnellement avec ça parce que tout simplement dafa nit ku ne aussi am na foo mën a yem. parce que tout da nga ñu affaire daf ñuy jaxase mënuloo aussi jékki-jékki parce que ñi xeex pour ñu gracier Karim Wade si nga bokk si nga bokk et entre temps on a condamné quelqu'un pour 138 milliards te ba léegi yow amuloo benn. focus boo def sur le montant bi ñu wax que ni parce que tu trois yow gëm nga ni comme avocat état bi que ni Karim Wade dafa jël suñu 138 milliards moo tax nga nga nga nga plaider pour état bi nga dem ba ci biir ne nañu gracier nit boobu c'est-à-dire que tu passes sur sur tout ce montant là tout sur ce scandale là et on parle de tu nous de ay vidange mm-hmm. xam nga donc man la sénégalais bi nga xam ne yow yaay sama député nga wax bu bu bu nit tooñee nga nga nga kii ko nga nga xeex ko mais pourquoi ngay def une chose et son contraire man ça me pose un problème léegi dama non nga continuer rek que da nga nekk da lu ci mais est-ce que est-ce que démission Thierno na sa xel que teeyul sa xel ci lu bëri benn question après du benn ci Thierno Alassane Sall ci affaire Karim Wade la bu ko jaxasee du ñaari. Ah, non non. <laughs> addiya ndànk rek waaw léegi demal ah, demal ak buuba waaw demal ak buuba waaw demal ak buuba. dama ni buuba da ngaa jàngul droit. ki nga war a wut benn collègue. ça c'est sûr non non jéemuma sax jàng droit. may ma non non non li may jàng mais mais nag. nga baal ma avec tout le reste que je vous dois li ma war a jàng moom du yow yaa ma koy wax. waaw waaw d'accord waaye yow am nga droit wax ma sama contradiction. non <coughs> toog fii pour ñu la poser la question dama la poser. ci laay tontu boo jàngoon droit doo gis contradiction xam nga lu tax. grâce du tere nga fay 138 milliards yëpp amnistie ba tax doo ko fay man ñaanuma amnistie amnistie loi bu ñu wote assemblée boo jàngoon droit kenn dana la ñuy effacé 138 milliards yi mais donc da ngay koo jiiñ 138 milliards yow nga taxawal Sénégal ñooñu ngay taxawal dina naan nañ ko gracier pourquoi nga mun a taxaw xamoo ne ah, grâce pour non ma ne grâce bi ngay ñaan quelle que soit définition grâce bi ni nga ko foogee dama ne nan nga mën a taxawee au nom du peuple sénégalais demandé ñu gracier ko tu l'as condamné pour 138 dama lay tontu mais sachant que sama directeur ngay waxal ah, mën naa ci xeex sa directeur dafa jóoru dafa jóoru tey ah, mën naa ci xeex li ma la wax mais moom la met yow ku la posé ku la posé benn question nga ne ko dafa jóoru ma la wax lu leer directeur moom jaral na ma tontu guma ab cheikh sa directeur directeur jaral na nit la rek day juum li ma la posé question bu leer la ku wax rek nga ne ko dafa juum juuma li ma la wax ni xam naa dama lay wan ni nga juumee dama koy def démonstration diggante malaaka jàngoo moom ma metti mais démonstration bi la def waaw quand nga lan mooy grâce mon directeur grâce du effacer délit bi les six les six ans sont maintenus les 138 milliards son maintenus la culpabilité est maintenue mooy li li dëgg yëpp yow la kenn baalu la dara déglu da ngay fay ba mu def benn di la may dërëm lépp ngay fay ma gëm ni Karim Wade liñ ko toppee woon moom mu waroon tontu pour génn ci boppam far mu noppi ndax kin di rien constant xam nga CREI yi bokk la yeneen yeneen tribunaux yi dañ naan la xayma ne ni lii nga am yëpp waroo koo am na da bëri na yow rek yaa mën a wax dama def ba am ko déglu fi may waxee de xayma nañ ay immeuble ay compte bancaire lu ne ni ñu yaa ko moom yow rek yaa mën a wax noo def banque boo ko deful waxoo ko ñu tëj la tëj nañu ko ndax waxul ubbul gémmiñam bi ñu ko tëjee ba pare grâce xam nga mooy lan mooy bu ñu tëjee diir nga am conduite bu baax kenn déggul Karim muy xeex prison kenn déggul muy jéem a def ay évasion muy daw te def na plus de la moitié de la peine dafa plus de trois ans donc critères yi yi ñuy réunir pour grâce bi am noonu na ko ba pare jabaram dee ay doomu ne xale yu ndaw yaayam màgget baayam màgget ba dem pale ma ne président bi nga faroo léegi grâce yeeg lu juróomi junni nit ci ñetti at yi ñooñu est-ce que gën a nekk sénégalais Karim Wade critères yi ñu laaj def am na ko ndax def na plus de la moitié de la peine bu ko tëjee juróom benn at def ñetti at ak comportement bu correct am ay fee yoo xam ne ko war a seet ci njabootam may ma rek parce que grâce ay yërmande la. vous l'avez condamné pour 138 milliards. waaye may ma day fay yëpp da koy fay ba mu jeex. déglu ma mais c'est-à-dire que ni nga banaliser affaire man moo ma. jaaxal ma banaliser ko. dafa war a fay déglu ma yow boo xamoon moo tax ma ne da nga war a jàngi droit <coughs> wala nga am consultant. parce que boo demee ci tere yu mag yi dañu am ay en droit en sciences économiques. am nañ ko loolu yëpp soxlawu ko. mais yow yow xamoo dara. li ma xalaat d'accord yow da ngay dem rek. merci baax na ba léegi loo yow xalaat da dem. question bi ma la posé leer philosophie bii day boo ko def da nga sonn. question bee leer rek. li ngay wax ni yëpp question bi leer mais li ma leeral mooy. 38 milliards la wax de. ñu ma ni bu xuloowuma polémique wu ma damay leeral encore leeral. leeral dama ni dama ni. aywa kañ la ñuy xëndi. grâce mooy xam nga la peine bi peine baa ngi fi milliards yaa ngi fi fay benn rek benn avantage nga am benn avantage. doo fanaanate prison. voilà voilà Charles Charles da ngay non non non dama raflé dama raflé. dama raflé donc ça veut dire depuis tout à l'heure da nga raflé waaw maître waaw. ça veut dire de manière très très xaw ma waaw je sais pas comment on dit mais. il faut Souleymane Faye déjà mu ngi mu ngi. c'est juste pour dire maître. mu ngi mu ngi ça veut dire que man xam naa je crois comprendre. dama jël dama def pause. mais dama lâché la parole ba doon tetoonu bu bëri. non non non c'est parce que on va s'attarder dessus. non non non non loolu ko ko nangu non non non loolu sax loolu. on va s'attarder du point de quand même professeur. dafa laaj parce que. man kay je suis. Pape Cheikh waaw waaw nañ déglu professeur. mu ngi noppi kii ci jël. <laughs> non non na jeex Kariba dama Kariba di jeex. waaw waaw non ma non dama bañ a jaxase sénégalais yi ak man. non non mais may non attends. parce que bu ma dafa gaaw jaxase léegi dolli ci dolli ci Charles. non mais dama la tontu dama bàyyi ma leen tontu bi. léegi mais non yooyu jaxase kàddu gi. maître maître maître léegi nañu déglu Charles après déglu euh, professeur nga doog nga doog a wax. mais pourtant pourtant dama bëggoon jeexal vas-y Charles mën nga des mën nga des ci point bi si vous euh, voulez allez-y Charles waaw. très euh, rapidement waaw très rapidement ça veut dire que

li nga wax ni moom yow rek la. waaye lépp waaye ñëpp ngeen di werante nii rek. parce il faut il faut man il faut pas ko parler pour moi man maa posé. vous êtes tout le temps jàkkaarloo quoi. donc Chao aussi c'est pas le. Chao <laughs> Chao c'est bon c'est bon pour toi ñu dem ci professeur. jàkkaarloo y a pas d'écoute on laisse pas les gens développer. professeur waaw ñu ñu déglu la professeur allez-y damay ñaan mm. aussi bien l'honorable député. Mhm. que Boubacar ñu dépassé dépassé question. waaw nañ ko dépassé. mais damay répondre rek. parce que euh, boo gisee mooy nañ ko dépassé. c'est pour euh, plusieurs raisons d'abord argumentaire bi ñun ñëpp déglu nañ la émission yu bari. Pape Ngagne bi c'est le argumentaire que am na tuuti divergence seen diggante yéen ñaar. Mhm. on l'assume en tant que on la dépasse. Mhm. on passe à une autre question mu jeex. mais mais mais Bachir. merci non parce que sa argumentaire bi. il faut que Sénégalais xam lan mooy grâce même argument voilà la part entre uh-huh. l'amnistie et la grâce. loolu mooy problème bu buuba. sama problème de. nee na dañu eh, koy baal xam naa lan mooy xam naa lan mooy non non du ma nangu nga toog fii moom loolu ma comme si man xamuma dara hmm. li ma la laaj waxuma moi je ne demande pas foogoon naa ba mu waxee par da ngay la différence entre grâce wala honorable buy wax ni dafa mel ni ma xamuma lan mooy grâce oui professeur professeur wax na dëgg par rapport ak euh, par rapport ak moom dafa jaxase dafa mel ni oui léegi léegi j'aimerais ñu jàll ci problème u Qatar bi pour tëj ko comme ça ñu jël tamit internet ñoom tamit ci lañu bokk problème u Qatar bi ak Sénégal ak yeneen états yi nga xamante ni peut-être y a beaucoup de gens qui disent que Sénégal dañuy jàppale euh, Arabie Saoudite euh, ba am euh, jafe-jafe ak décision yu ñu jël par rapport ak seen diggante ak Qatar très rapidement ban xalaat nga ci am en tant qu'homme politique en tant qu'avocat aussi du peuple. xaw ci dara. d'accord. <laughs> xaw ci dara. xaw ma tënaay ay aboutissants mais am nga ci xalaat. xam nga temps yii ñu ngi si convention ay liste électorale. Mm-hmm. ñu ngi préparé suñu élection législative. Mm-hmm. dewuma Qatar dewuma réunion euh, Trump ak ak Arabie Saoudite xaw ma réew maa dafa am ay terroriste. mais mais mais mais li ma wóor. non mais je suis désolé. parce que nous autres on a demuñu Qatar. non non je suis désolé demuñu Arabie Saoudite xamul de. non mais xaw ma ci dara. <laughs> amaguma les vrais éléments. Euh, waaw mun nga ma ne amaguma les vrais éléments mais xaw ma ci dara. am nga ci xalaat xaw ma ci dara terroriste yi ñoom xaw ma dëgg la wala dañ leen ko sosal. dama ne boo nee xaw ma ci dara c'est que vous êtes pris en défaut. Pourquoi Parce que justement, vous devez savoir. C'est à Ah, justement. Pare non, maa ngi maa ngi documenté wu xamaguma. du ma yàkkamti wax lu ma xamul. man gisuguma waa Qatar gisuguma waa Arabie Saoudite gisuguma ñi terroriste maa ngi def sama euh, recherche pareguma nga bëgg ma wax loo non xam nga yàkkamti ak yàqule buñ juree doom buñ juree doom bay daanu Qatar lu am est-ce que sosalu leen ko est-ce que dañ du sos est-ce que dëgg la xaw ma ci dara wax naa dëgg xaw ma ci dara. bi quand même jël na décision. Sénégal ñee dafa ci yaay jàmme Sénégal léegi mu jël ay ay jëfu dof kenn xamul lu muy def léeg-léeg mhm. léegi mu def lu baax xaw ma ndax moo nekk dëgg bi paa. xaw ma nekkul ci dëgg. donc waaye danaa gëstu gisul sama bopp. voilà mais fi mu nekk nii. ñu hmm. may dara. internautes Marianne on retrouve on parce que ñoom tamit ñu gi posé ay questions depuis sànq euh, ak Marianne euh, Siva hashtag bi euh, siiw lool QG TFM Twitter Snapchat Facebook ba ci suñu site internet bi www.igfm. mais justement nañu ko la kër yi xëy na moom dinañu mën waaw maître maître ñu commencé ci question internet yi rek tàmbalee ko ak ki nga xamante ne. mooy maître El Hadj pour finir waaw. waaw ah, ok. Mhm. kon ñu tàmbalee ko ak Djily Ndiaye moom nee na dafa bëggoon xam ginnaaw ba seen mandat bee ngi jeex soo ko mhm. doon defal bilan wu li nga jot a def assemblée lan lay doon mu ne est-ce que kontaan nga ci yow li nga fa liggéey. pour mériter beneen mandat keneen ki di Ismaïla Thiam xaw ma ndax dañ ciy continuer de ndax si si Qatar lay laaj waaw kon ñu tëb si boobu ñu ñëw ci la question là oui, oui. des propagandes propagande lay nekk quoi non non du propagande non du propagande non non du propagande. si législature non non du propagande. bilan bilan la du du propagande. waaw defal bilan bi kon rapidement. ah waaye waaye lu ngeen di raf raf lu ngeen di tiit <laughs> mais xanaa kon ñëpp noppi teg télé yi rajo yi ñoom ñibbi ba ba ba élection yi jeex rajo yi ñëwaat télé yi kenn du wax dara pays de tàppale bëgg rek mais xoolal dama ni. bilan de la législature ñun dañoo weex dugg ko ñun waa TFM mais kenn mu leen dara def na fi dara. Ah. ne ma El Hadj Diouf mooy le meilleur néew leen wotal leen ko kenn ci waxu ko. Mm-hmm. néew ma wotal leen ma <coughs> mais dama ni c'est-à-dire il faut que nit ñi il faut que faut pas que les gens soient frileux. Mmh, loolu moom dëgg la. nañ bàyyi affaire yooyu quoi. on est en démocratie. on est en démocratie bu bu waaye professeur di nga d'accord ni. alors nit itam day am kilifa. question baa ngi nii ñoom ñoo ñuy superviser. et que voilà am nañu am nañu droit topp itam liñ ñu tere. voilà question bi je l'aime xam nga lu tax. Mmh. man de bi ma demee assemblée nationale. ànd fa samay moroom. ñenn ñi dañoo demal seen bopp ba pare dem dugg groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Mmh. muy Mansour Sy Djamil Mbaye Niang. ñu jox leen poste bureau man ma ne maa lànk damay taxul askan bi ma commencé dañoo fa man kenn xam ngeen ne bi ñu yokk groupe parlementaire de 10 à quinze xeex na ci ba jëm conseil constitutionnel am na wala amul bi ñu ne kenn gën a groupe parlementaire bi de beneen groupe parlementaire des lois scélérates muy jaay doole keroog bi ñu nangoo groupe parlementaire PDS jox ko fada bi am 4 députés muy Mamadou Cissé bu bu Kédougou Fat Thiam Diop si ak Khadim Thioum ak moom muy cinq cinq députés mënu am groupe parlementaire te dëkk day am opposition parlementaire dafa am groupe de l'opposition ñoo ko ay dem wëj ñu confisqué ko pendant un an ku kat moo ko xeex xeex ba maa ko jiite bokk ma seen groupe parlementaire PDS bokk ma seen groupe parlementaire non inscrit la mais li may xeex assemblée mooy dëgg di fa jolli keroog article onze article onze ngeen gis ma ma nekk ci ginnaaw xanaa fàtte fàttewu leen loolu lan laa doon kaas dañoo ñëw ñu ne dañuy fal bureau bi pour man sax benn groupe parlementaire moo am ñu pare ñes ni am na ñaari groupe benn bi Fadala benn bi Omar Sall moo ko déclaré pour ay demboori léegi nag dañuy dem ci bureau ba bureau ba départagé mu ne ko déet président xanaa xamoo ne bureau amul ndax groupe parlementaire yi la jooy fal bureau bi man en tant que député aw ma droit ne damay damay nekk troisième vice président il faut qu'un groupe parlementaire parraine ma candidature règlement intérieur moo ne groupe parlementaire yooyu ñooy ñooy dem compétir pour bureau bi assemblée kon nu ñu mënee ni bureau am na na bureau bi wax wax ndax groupe bi baax na bi baaxul alors que groupe yi ñu war a compétir pour fal bureau kon war nañ xam groupe yi ba pare parce que groupe bu ne au prorata de ses membres lay am nombre de vice président de secrétaire élu et de questeurs kon noo xam ne xamaguñ groupe Fada. mais honorable nga baal ma mais ci bilan la laaj rek. ci ma rek bay ma dama expliqué dama leeral rek xamagoo bilan bu Fada xamuloo bilan euh, xamuloo groupe parlementaire bu Fada ak bu la bu ci baax kon kay bureau amagul ndax xamagu ñoom ñaata la ñu am xam ñaata vice président bi jeex na fan lañ bureau bi pare dana dem départagé loolu amoon na fi. fu ma waxee ñu ne damaa contre Moustapha Niass quel est le problème. man ak Moustapha mais bilan bi. chaque jour ma poser problème <laughs> contester pour population yi. ban bilan nga ciy def. léegi bilan yi mooy lan. fi ñu bëggee jaay doole askan bi fi ñu bëggee yokk groupe parlementaire de dix à quinze. fu ñu ne ba ñëwee def résolution dañuy féliciter Serigne Mbaye Thiam. ndax violé na décision cour suprême bi ni élèves maîtres yi dañuy jëlaat président ma ne ma tuutiwaawoon maa lay jàppale. Macky Sall de cour suprême décidé <laughs> Serigne Mbaye Thiam ne moo lànk ba exécuté décision président de man kon Macky Sall du ma d'accord ma ci erreur yi bi def mm. dem ci waaw ñu ànd ñu inauguré salle bu rëy bu rafet boobu mu ne ko mu ne ko man lay jàppale ñu assemblée bi nga xam ne ñoom ñëpp day taalibe Macky Sall lañ def résolution pour voter pour yow Mbaye Serigne Mathia yow la ñu àndal Cour suprême li mu wax bu ko def on viole une décision de justice ba tey pare ku ma def ci may défendre yëpp ñu xëy jàpp Omar Sarr député mm. keroog ñoo ñoo ñoo sol affaire yi takk solidarité ma dem assemblée ne yi ngeen wax fii ay nañ def motion de soutien à Serigne Mbaye Thiam dañuy def résolution pour ñu la libération immédiate de Omar Sarr te boo ko ma am groupe parlementaire ak yeneen